xibaar yi ngeen jëf mbokkent internet yi ñu jaajëfal leen bu baax ñoom ñaan ñii nag seen àtte bi dàq nañ ko dàqati ko waaye dàqatiwaat nañ ko bala 10 novembre 2023 muy Cheikh Yérim Seck ak nga xamante ni mooy Oumar Seydina Oumar Touré wala capitaine ture ñoom ñaar ñooñu nag dañoo amoon jafe-jafe ak yoon kii di Omar Touré daal daa waxoon ne kii di Cheikh Yérim Seck daa bindoon ab livre te livre boobee nag da see tuddoon capitaine mi nga xamante ni doxoon na si diggante moomee diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ndax moom moomee nag di capitaine Touré ne moo ki yoro mooy ki njëkkoon a yor li nga xamante ni moo di enquête bi. moom mi woon di capitaine Touré nag daa di Cheikh Yérim Seck lim ko waxal sa livre bi daal nekkul dëgg maam di ko da ko diffamation ba tax na nag mu yóbbuwoon ko fi nga xamante ni moo di sa yoon ñu waroon leen àtte waaye àtte boobu nag mën nañ ne dàq nañ ko ay yoon tey ji nag la waroon ko àttewaat waaye nag dàqati nañ ko bala 10 novembre 2023 euh, bi nga xamante ni moom la ñu jëm ñu xool nag fan la wanante du mujjee gi ak gëtam.